salaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammadin seydil awalin wa axirin wa ala alihi wa saxbi wa man daa bi daawati waxtulaa bi sunnati ila yawmi din subhanaka laa ilma lana illa ma alamtana innaka anta alim hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli ah ñu leen di nuyu ñëpp ku nekk ci suram ak santam di ñaan yàlla wax ji may wax mu nekk wax joo xam ne baax la waaye jox jub la tey muy wax nekk wax joo xam ne ku ko dégg tamit ci internet bi mu nekk loo xam ne ci mag ñi laa ko déggee déggewu ma ko ci kenn jàngewu ma ko ci kenn ci mag ñi laa ko déggee yi ci Cheikh Massiré li ci Pape Mahi li ci Imam Cheikh ci Sabam Diop ak yeneen ak yeneen ak yeneen amul dara lu ma ci fekkee nag ma ci daara waaw laa ci fekkee wut yi may wax nii lépp lu ma dégg la fekkewu ma ci dara loolu laa bëgg nit ñi xam parce que fi ne nii fent dafa am mhm. di nuyu Papa Mahi Niass baax Imam Cheikh baax Cheikh Matian Papa Mahi Baba Lamine ak président wala boog <laughs> directeur école bi waaw ak mboolem mbokki taalibe bi waaw ak mboolem xadam waaw di leen wax ne relation Baye ak bitim réew de ma ne li ci dégg Oustaz Barham joo ak mag ñi wax rek laa ci xam laa ci xam euh, ndax bay nekkoon na fii ci senegal fii <coughs> di tasaare diine tasaare islam tasaare tariqa léegi nag ah génnutoon bitim réew ndax lu tax génnutoon bitim réew <coughs> dafa am dafa am <coughs> amatoon ndigal pour génn sa baraam Jóob nee na Baye wax na ne am fen fu may tukki ci àddina bi te amul ndigal sa reex ci pay boobu nga xam ne taal te taala mun a am raxaa du ma gën dem fen foo xam ne benn pay boobu noonu ma ndigal pour ba dem fa waaw moo tax mu ne bi waa Nigéria tanjamale ni ñoo bëgg bàyyi mu ñëw fa bàyyi leen aw ma ndigal ñu yónnee ñaari yoon ñetti yoon bàyyi leen yónnee leen Malam Tidiane Ousmane yaakaar naa su ma juumut ne leen naa ñëw waaye amaguma ndigal pour ñëw bàyyi yónnee leen Malam Tidiane Ousmane ne leen bëgg naa ñëw waaye amalu ndigal pour ñëw fépp fu muy dem ci àdduna bi dafay am ndigal sareex ci pays boobu noonu am fépp fu muy dem ci àdduna bi doo xam du am ndigal di dem nag ndikk ali 1937 diggante 1937 ba 1960 la Sénégal am indépendance bàyyi mi ngi tukki ci àddina bi tukkeem yëpp sax jaaxal loolu leen autorité réew mi jaaxal leen lool ba bàyyi déggoon na ci sax ay gaaruwaare yoo xam ne Senghor moo ko doon gaaruwaare waaw dégg naa sama benn mag bi ñuy wax Mouhamed Khourachi Ibrahima mais wax na am na benn jamono bàyyi dafa soldat la bu dem seeti benn kilifa diine waaw parce que Senghor dafa toog moom ne ko dëgg-dëgg yaay sëriñ parce que yaa ngi am bi rek yaa ngi am sa der bi yaa ngi am ci lii am ci lii waaye sëriñ boo xam ne du toog rek tukki rek bi ko bàyyi seesee ne ko dégg naa da amoon gan waaw dégg na sa gan gi la wax waaw mais damay yaakaar nga damay yaakaar nga yaak damay foog nga bañ ne dafa la doon tàgg fekk dafa la doon xaas yonent bi indi diine ji bu emoon ci deram bi yëpp deram bi rek xaw ma ñun fu jëm yonent bi indi diine ji bu emoon ci deram bi rek xaw ma ñun fu ñu jëm soo baa doo nekk kilifa diine man du ma nekk kilifa diine dafa njëkk jóg yàlla ne ko waa incha allah taqrabina mu jugaat yaa ngi nekk wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina waaw moo tax mu egsi ci ñun dégg naa ku naan kilifa goo xam ne tukki rek buy di buy tukki rek buy dem gaana man la ñuy wax mu bëgg wax la sama yoonu gaana wii bu na naqaree julit yaakaaruma mën a bu naqaree ku du julit yaakaaruma mën a xare ndax dara xewut du ma yokk ak ay jàng yokk ay taalibe wasalaamaaleykum ci jumaa ji waaw fekk dañoo wax naan boo ma leen boo defoon nii boo fekk boo defoon nii rek boo ma leen nii rek fekk kurma la ñuy waxal kurma la ñuy waxal waaw kon nag kooku moo jug taalif ay téere yu bari waaw te di dem ci moxtabar islaami yi di dem ci àddina bi fu nekk mu taxaw fa dégg naa ne Amérique taxawut waaye mboolem àddina bi fu nekk tànkam dem na fa ci Afrique tubaab bi nag dañ ko daan siifar waaw dañ ko daan siifar te moom xam na ne ñu ngi koy suivre moom xam na ne ñu ngi koy topp moom xam na ko addiye di jëng ko fa jox mu xadab yi fa def lépp lu mu fa def hmm, tubaab yaa ngi koy topp di ko bind moo tax suñuy doom yi ak suñu jërbaar yi yi nekk France yi nekk Angleterre yëpp ñu ngi bind jël ay archives bind ay téere ku mel ne Seydou Boucar Niang ak ñu mel ni ñoom ñëpp hmm, am na ay téere yu ñuy bind yoo xam ne ci wàllu bàyyi la ay information yi bàyyi am ci àddina bi ñu jëkk di ko def téere di ko bind am yoo xam ne am nañ ko duñ ko am arabe am yoo xam ne am na de français am na waaw sa baraam mu ne ba bàyyi jóge na fii dem Paris di faju ji dafa toog benn bés rek bëgg a dem Élysée pour bëgg De Gaulle ci lu dul audience mu ne moom rek ko ñëw <laughs> waaw moom rek ko ba mu fa demee fekk fa jëbbaar boobu kàccoor boobu fukaar mooy bëkk nekk digol moo dox diggante moo ak digol ba bàyyi gisu digol mu ne ko président calendrier am lii lii lii lii mu ne ko ma ne bu ñëwee nga ne ko soo ko fàttewut xaritam boobu ñu wax Ibrahima Niass moo ko seet ñëw woon nag pour gis ko dama ñëwoon pour faj sama bët sama xel daj ko moom mi nga xam ne bu pare amee France ak Paris ak France amee problème te ñu bëgg ko te mu bañoon occupation ba mu ñëw ba gambu gambi wax ak man la jëflante man lañ jëflante man te sama taalibe sax am ñu dee woon ci loolu te am ñu loolu décoré barki démb gi mu bàyyi génne benn dossier ne ko dossier bi sax imprimé guñ ko hmm, waaye décor gërëm ne ma ci mooy tubaab xonk dafa yaakaar ne benn waay nag boo xam ne dafay ñëw fii jaar fii na affaire yi ko déedéet déedéet ah ci kaw loolu am na lu bëri loo xam ne nit ñaa ngi koy nettali <coughs> waaye nag daanaka bi ñu koy nettali dañ koy jox ñeneen waxtu wu jégal ñëwee fii te suñ mbokk moom dañu nekk fii te wal wal dër jo recevoir ko te ñu wax naan disole indépendance ak ñi amee pancari defal dafa sëkku Sass Baraam nee na li ñëpp yëgul ma wax leen ko te billaahi wallaahi tallaahi bàyyi ma ko wax déggoo dafa laajte ne El Hadj Ibrahima Dieng fi heureusement bàyyi nga dakaar ñu ne bàyyi ñëw fekk ko pare mu ne ko gis nga ni ma def na ko wax mu ne baat boobu la waaye nag tawat na ko bàyyi na ko yow loo bëgg mu ne ko dañoo bëgg suñu autosuffisance bi dans la communauté ànd ak France ñu jëmbalante ku ne non doon dem ak sa bopp mais laaj ak bàyyi mooy ndax bu ñu waxee tey wi bu ëllëgee ndax mën nañu wax no dëggal na ko waaw na ko ko war bi muy génne nag mu ngi déggal naan dégg dégg déggal déggal naan ree leen moi je suis fatigué <coughs> nekkoon nag moo ñoo nettali ne ko ma nga demee xamul lu wax ngeen xamoon góor gi ni mu xamee lu wax dana am dañoo gàmmawaat ba pare sëriñ bi def discours am ba pare ne ñun nag ñun nag duñ noonoo ñun nag duñ noonoo te duñ wootee non non duñ non non te duñ wootee non non yonent yi ñu faana waaye ba ba set ñu xëy waaye ba ba set xëy ñëpp xëy woote wax jooju rek léegi moom lañ jël jikko moom la ñeneen or bu ñu ootee fête indépendance ci senegal gi duñ ci tudd Baye te ñu tax ñu Sénégal indépendance Baye mii ci la bokk te dëgg-dëgg sax moo ko def waaye duñ ko tudd mbokk ci àdduna politiciens ñoo la gën a xam loolu ñii njiiti réew mi ñoo ñoo la gën a xam loolu opposition bi ñoo la gën a xam loolu di ci bàyyi jëf ci politique Sénégal grande mosquée de Dakar bii biñ koy tabax Assane Deme moo ko tabax waaw wala papa Assane Deme kenn ci ñoom daal biñ koy tabax dañoo wax ne ilimaan gi dana am carburant dana am oto dana am salaire sëriñ si ne dañuy suulante waaw léegi nag fekk kenn ci lébu yi Pape Malamine Diop bi ñëw seet baay Baye di ko indil ba ngoon bi muy ñibbi Baye ubbi armoire am bi mu ubbi armoire am gédee benn manto na ko bi ñu sant jumaa ji nga sol ko waa na ko jumaa jën laay la yow sëriñ bi ji nga xam ne Sénégal yi ñëpp ñu ci reyante ba mu ne sa réew kenn jumaa jooju ñu ngi ko jiite bàyyi na ko hey ma ne bi ñu jumaa ji nga sol daara ji laa wax ah mu dem bi mu demee toog jumaa ja ba ñëpp <laughs> wax wax bu seen xol sedd mu <coughs> mu yéen <coughs> bëkk mu ñëw bëkk néegam <coughs> ñëwee indi mante bi mu ne leen gis ngeen mante bi alaaji ibrahima gis moom ma ko jox nee na bu ñuy sant jumaa ji naa ko sol ku ci repp ci réene insisté yàkee ko jiite ñu ne ko nga neel ma ne moo ma jox mante bii ñu bu ñuy sant jumaa ji naa ku ci repp ci réene insisté yaa jiite man pare naa ci ba léegi famille bu boobu jumaa ji ci ñoom la mujjee wax boobu tamit ñu ne dañ koy fàtte duñ ko wax waaw amonte tamit ak relation ak mboolem sëriñ Sénégal bi laa ñëpp ñëpp la armation préfet sëñ Fallou dégg daa sax sama nijaay muy wax ne kii am na benn sëriñ bi ñëwoon ci moom man damay fàtte ñëwoon wax ci Baye parce que Baye dafa téléphone bu main téré téléphone bu ñuy wax kaashiful albas waaw bi mu ñëw ci Baye ne ko damaa ñëw nok nok la sa téere bi ak ana bi nga ko taalifee sëriñ bi ñun suñu téere yi ñuy taalif nii ñaare bu ko nongo di sotti léeg-léeg nga daje copie boo xam ne sëriñ bi doo bëgg sax ñu askan la ko moom sëriñ boobu mbàkke mbàkke boobu noonu damay fàtt turam mais moom moo ko wax Baye ah léegi nag mu jëflante sëriñ si jëflante ak ñoom a ah, bu dee ci problème yi jiite réew mi nag président Senghor wax dëgg yàlla ah gannaaw gannaaw gi la jubóog bàyyi waaw mais seen diggante commencé neexutoon waaw loolu nag man li am rek laay wax ak li ma deg ci Oustaz Barham Diop mi wax kum naqari tamit man ma samay wax waxuma sama bopp waaw parce que dégg naa ma dégg ci politique léeg ma dégg ci télévision bi chaîne yi télévision yi may jàpp ñu wax relation sëñ si ak Senghor mais am na ci dugal am na ñu ci wax yoo ne man ànduma ci d' accord ci d' accord ma ci parce que ba dee ku mel ni Baye seen diggante neexutoon ci commencement bi parce que Senghor Lamine Gueye moo indi ci réew mi fa mu doon jàngale falaaj France ñëw ñëw indi ko présenté ko Baye Sa Brahima Diop nee na mu ngi fa moom ak xaw ma kan sëñ Aliou xaw ma dégg nga ba mu ko présenté Baye <coughs> ba génn avant muy génn dafa wax Baye na ko bu ñëpp amoon ku mel ni ñaari ñu may woon ñetti ñu defar Sénégal waaw ba mu ko présenté Baye ba pare ba génn Baye ne man de Lamine moom ma gën a taal xel yaakaaroon nga ne kii du ko uruj yàggul dara ñu tàggoo mais Senghor <coughs> avant Lamine dafa dafa kii maanaam lemi dafa amoon bàyyi xam nga bàyyi du kóll bàyyi kóllëre mu ngi ba kóllëre gi mu ngi sama mu ñëw bees bàyyi def lool waaw bi bi ñuy ootee ak Ngalandou Diouf hmm, c'est la première fois lem ngay ñëw gën a si bay <coughs> bi mu si bay léegi nag bi mu bi mu demee bàyyi ne bii de yaakaar naa ne lem ñu ne ko ah lu tax mu ne ko dafa tombé may jàng sama diwaan bi jaato yàq xayra alami wasilati waaye ki jamaan wasilati ci téeram boobu noonu mu ne tagg yonent bi ma yaakaar ne mooy gane hmm? boobu la gaye gannaaw gi nag ci loolu nag ah Baye di jëflanteeg Senghor am na ay ndëgg sarax yu bëri di ko tagal Senghor tagal nag ndax Sabaam Diop nee na ànd naag Alaaji Abdoulaye ak ci Moxtaarul Dada ndax boobu bàyyi dafa uteeg Senghor si affaire fleur bi hmm? mu ne ko président yàgg nañu digal ñu dimbale ko ci négliger sa papa parce que victoire ba am rek daf koy découvrir waaw moo tax Oustaz Ibrahima Diop di wax ne hmm? li am ba am daal hmm? li am ba am mooy fexeel na ko ba tey loolu moo wóor li am ba am mooy fexeel na ko ba tey loolu moo wóor ab wax yu bëri sax ci amal ma Pape Cheikh moom laa ko jëlee waa affaire demee noonu Sénégal amoon nañ problème yi xaalis ci jamono Abdou Diouf ñëw na seeti Papa As fii ba bañu seen mu ne am na loo xam ne Sénégal différente na ko ak El Hadj Ibrahima waaye li ma nekk am de temps moo tax mënu ma koo wax génn woon na ko génn woon na Sénégal ci guddi googu noonu dégg nga dem nañ ci sëriñ su bari pour ñu fay xaalis boobu noonu dégg nga ñu ñëw ci bàyyi bi ñu ci bàyyi bàyyi na ne tey de Kaolack laay fanaan xanaa après ngeen fekk ma Kaolack ñu indi oto yooyu nga xam dafay eb xaalis ñu indi oto yooyu noonu waaw ñoom papa ki bi ak ñu mel ni ñoom ñoo doon génnee kees yooyu noonu waaw amen papa Cheikh mu ngi tooñ sax di wax papa Kébir xam nga moom Gambie la mu la fe ba tepp benn teppi benn mu gis mu bëri ay dollar ma mu bëri ay dollar waaw ma delluwaat ko fa mu nekk tefaat ko waa affaire njëkk kees yooyu noonu yóbbu ko xam nga ñaati milliards la te hmm? le Sénégal boro yooyu ñoo fayoo état bi loolu duñ ko wax lii mooy li nga xam ne Hmm? moom may wax ji ah léegi nag wax dëgg yàlla yàlla ndig may ko ndigal nag ah mu dem tukki bitim réew waaw tasaare diine ji waaw am ak relation euh, ak kurma dégg naa ne am na Pape Cheikh mu ne kurma moo booleeg bàyyi ak Jamal Abdou kurma moo booleeg bàyyi ak Jamal Abdou moo leen booleeg bàyyi parce que bàyyi dafa ñëw gaana waaw bi mu ñëwee Gana kër Cheikh Omar Fouti gi mu dëkk hmm, ñu wax kurma boobu kurma mu ngi nekk ci politique bi waaw ñu ma ne bu mag dégg naan sëriñ bu mag ñëw na fi dama damaa bëgg ñu dimbali ma gis ko mais ma bala loolo loolu bala ma faa dugg damaa bëgg bu fekkee ne lamp yi tàkk yi doon damaa bëgg ñu fay ko tubaab yi taxaw tubaab yi taxaw moo wax loolu waaw yow xamoon dëgg bala ñu fay dëgg dugg dëgg ñu fay lamp yi mu ñëw ci bàyyi bàyyi na ko loo bëgg mu ne ko libéré Gorgos développé ko boobu gaana dafa golgosu lañ ko doon wax waaw bàyyi na ko ah fi bëri na ay julli de boo gañee nag ñoo defak ñu mu digli gën a baax bàyyi na ko waaw incha allah mu jugul ci élection ya coolu bëri ñu arrêté ko parti bi ga ñu gën a ko monsieur le mu commencé nag ji jëflante ak bàyyi ba mu demee ba ci digg bi nag ba ay kàccoor dugg ca xel ma yàlla nattu ko tukki mu tukki ci ñu tere ko ko te bàyyi na tukki mu ci ñu ko ko bàyyi na bàyyi na da ko def na ko bu dem yu ñu allégué bi laay ba paas ba ci ambassade ba ambassade bi di ko kale-kale naan ko pour ñu jox le visa il faut ñu consoler il faut ñu def lii fekk mën na kii sax daal daal dañu dañu jox visa nekk moom tamit sax waa ji yooyu mu ngi tapare allégué bi laay wax ko bàyyi bàyyi na ko dama ci lu dul visa mu dem ñu teeru ko mu ne ko sëñ bi mu ne sa tukki mi leerut soo mënee fomm moo gën <coughs> soo mënta fomm nag nga jëfandikoo lii ba mu jeex nga doog a dem ah bay allégué bi génn rek aide de na ko man daal ñu óolatuma leen saafara daal man ma song ko de sax yëngu saafara de dee lu ñu jore ndeysaan kon mu nga xam ne diplôme philosophe la te daañu ko tuban élégance ndeysaan mu de wax waaj ndeysaan mu dem one ñu ko gannaaw mu ne Omar roq ñang bàyyi mosu na koo yónni Guinée mu dégg waaj yooyu na ko moom bul laal saafara si mu ne ko Omar ñu bëri dañoo bëgg ñu politique yi waaye man dama bëggoon ñu dem rek ba ma yàq ba ma defal la ma yàqoon ñu ko ah sayfu dayaati leben <laughs> loolu mënta nekkati kon nag kooku mboolem wàllu yàlla yi dinay wax wax yoo xam ne sax da ngay yaakaar ne lii wàllu yàlla ñemoo koo wax man suñ ma joxee micro ma naan xalifa général de Tidiane Cheikh Mahi Ibrahima Niass wala Cheikh Matian Ibrahima Niass loolu nekkul lu ma fent suñ ma joxee Cheikhna Ibrahima sañ naa wax ne xaadimul umma moom sañ na loolu man mën naa wax Cheikhna Ibrahima Cheikh xaadimul umma wala xalifa bi hmm? Hmm? mais su ma la waxee nag Cheikhna Ibrahima xalifa Cheikh Tidiane bàyyam moo ne wa man yuhibbuni wa man yaraani bi jënti ko laa bu laa butaan is inna di xalifatu Tidiane loolu waxi bàyyi waxi bàyyi dong laa wax nag waaw du affaire gaaruwaa rek ñi tudd nañ ko seen bopp ak ñii ñoo ma lañ uy yëpp man loolu mu concerné wu ma man damaa wax li Baye wax rek ku ma diwoo ma ne diwoo ma ne diwoo ma ne yow sa responsabilité wàcc na man loolu moo ma intéressé su ma neexee man xadim umma mais su ma xale xale si da ci jant bi affaire demee noonu hmm? man li Baye wax rek laa wax sama yoon nekk ci loolu hmm? ko wax ma ñëw wax ko léeg-léeg nañ ne ma Baye waxul lii ah wala Baye waxul ne ba xale si ñëpp. jàng nañ ne Baye ñëw na Soudan waxtaan ba pare mu ne am ku ko laaj ne ko Baye ndax yow yaa ngi yonent yàlla Muhammad mu ne déedéet ndax fekkee ne yonent yàlla ndax alxuraan ne benn yonent dootu ñëw waaye nag boo xoolee sama jëmm gis ko boo xoolee sama gannaaw gis ko waaye nag xanaa yaa Isa mu ne ko du ma Isa waaw waaye ci sama ndigal la koy xanaa yaay mari mu ne ko du ma mari waaye mu sama poos te Soudan loolu ko bàyyi tontu waaw ah léegi nag affaire bàyyi du jeex dañ ci jël rek liñ ci war a jël gars yi ñaan Sénégal xamuñ bàyyi ah am nañu ko ci xam kay yàlla moo rek parce que parce que mbiram bàyyi ku neexul bàyyi dootu ñëw waaw usulu jami naa si kër bi xabliyaat xaq man la muy kese bee bee bàyyi képp ku nekk taalibe Baay rek hmm, yàlla la oo bàyyi la oo parce que parce que parce que Baay ba muy tànn def ne yàlla boo may tànn àndandoo danga may tànn àndandoo yu gën hmm, kon ku ñëw def fekk nga gën ba may tànn àndandoo danga may tànn àndandoo yi gën kon ki képp ku nekk taalibe ba kay xëy nga dangaa gën moo tax ah, waaw kay waaw léegi mu gis ak arabe yi waaw di dem bitim réew waaw waaw di dem ci moctamar islami yi waaw affaire yi waaw ñu gis ko di ko laaj seen xalaat di ko laaj seen xalaat muy bind ay ay lettre bu ñuy toxal maqaamu Ibrahim ci kalamam la waaw mais côté boobu dañ koy tënk parce que li ci xew yëpp man maîtriser wu ma ko dama koy déglu ci ustaas mais maîtriser wu ma ko <coughs> mu buñ toogee ku nekk gis wax sa gis-gis wax sa xalaat ah, am ñu bëri ñoo xam ne ñoo wax seen gis-gis wax seen xalaat waaw ñu ne ah dañ ko war a toxal parce que fi mu nekk dafa xat am ñu bari wax jàllut a ah, ñu ne Cheikh Ibrahima su waxal mu ne ma xam bii man li ma bëgg a laajte hmm? fu mu nekkoon ak yonent yàlla Ibrahima ah fu mu ko bàyyi woon dégg nga ak ku ko jël ti di ko toxal tey hmm? ban autorité nga am pour toxal ko ban bagage ba foo basé wu ba toxal ko ba dégg naa sax ñu am na jamono Omar bin Khattab dafa dafa dégg ne maqaamu Ibrahima dañ koo toxal mu ne fusée a fusée a maanaam dafa tit mu xam ne moo ëmbri moom ni ñëw wax jamaa bi ne lu ngeen xam ci lii ci ma bii bi ragal yàlla ko xam xam na dara ci maqaama bi am ku ne ko man de dañ kumpa taxoon na ma natt diggante barab sàng ak diggante barab sàngam ngir dañ kumpa mu ne ko ana buum ya nga natt nattee woon mu ne mu ngi mu ngi sama kër mu ne ko toogal keneen jëli ko bañ yàggee bañ rek ñu yokk ci wala ñu wàññi mu ñëw mu amoon nataal ko delloo ko fa mu nekkoon mu ne ko fekkee yëf yi simple loonu lu tax mu Omar tiit nga xam ne moo émiri moom lu sax mu tiit mu tiit benn <coughs> mooy su fekkee ne <coughs> buur bu ñëw toxal fekkee ne buur bu ñëw taxawal toxal ah maa ngi leen di gën a jaar bu egg Sénégal doo dañ ko jot <coughs> nag am benn waaye boo xam ne dafa wax ne ah Cheikh Ibrahima Niass li mu wax ci maqaama bi man ànd naa ceeg moom man ak moom a ànd waaw ñu jàng ñëpp affaire bi jàllut waaw ci ëllëg sa bàyyi ne dafa ñibbi am benn waaye bu ko wax ne ko benn kilifa kilifa gu ko wax ne sëñ bi suba la ñu ma wax ci maqaam bi ma wax ju mujj waaw ah xam ne ñi xam yëpp a ngi toog ba pare nopp te kenn du wax xam nga walaay la dee na wax bàyyi te topp toog ak opinion ñuy wax rek mën a topp rek mais ni moom mosu cee wax wala mosu cee def wala bëkk dem la ci doon wax mën na pat ba ak wax ci action Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima mu ne tey laa ci mujj wax ma xaama bii tey laa ci mujj wax waa Saoudia buur bi bu de ñoom ñoo moo xam ma bi def leen seen ibno toxal ko fu neex def leen seen ibn toxal ku fa ne su fekkee ne nag jullit ñoo ko moom hmm? maa ngi wax ngeen tey ci benn ngeen tey ci waaw tey sax bu ko Omar taxaloon sax hmm? man xam naa Omar parce que yonent bi dafa wax ne roy leen ci ci diw diw diw bu tudd Omar boo ko Omar taxaloon sax man xam naa Omar foofu rek la ko delloo bañ koy bañ décidé ne dañ koy taxal nag Hmm? ñu wax bàyyi ne ko il faut nga ñëw bàyyi ne moom mënut a ñëw yónni Oustaz Ibrahima Diop man mënu maa dem yónni Oustaz Ibrahima Diop ba mu yónni Oustaz ba dem hmm? ci la bàyyi wax waxee ne Oustaz Ibrahima Diop indi indi nañu mbégte bu mag maqaama Ibrahima bi nga xam ne dañ ko bëggoon a toxal nga xam ne am na benn yonent bu ko fa defoon nangam ak nangam lu mu ko expliqué hmm? mu ne boobu man maa bañ ba taalifal leen ci téere boo xam ne lii moo tax bëgguma ñu toxal ko ah mujj ñu ko toxal ndax bañ décidé pour toxal ko bañ décidé pour toxal ko dañuy dem ba ci kaaba gi ñuy gas hmm? biñ gasee gisuñ dara lu may kii maanaam liñ fa sotti yëpp ay béton ak përëm la waa ay béton ak përëm ñu gis ne ñu ñu maanaam buñ ko dindee kaaba gi mën na ci demaale hmm? ñu ne kon nañ ko fa li Baye wax li ma la ci expliqué lii yëpp ci maqaam Ibrahima hmm, am lu ci des de dafa am loo xam ne maîtrisé wu ma ko te man lu ma xamul lu ma ci wax moo tax ma moo tax ma waxee ko noonu léegi nag gannaaw gi nag ah muy jëfalante ko waa Nigéria jëf jëfalante ñoom dem dem ba ci digg bi am ñu ñëw waa ci Nigéria foofu noonu waaw ñoo xam ne ànd ñoo bàyyi di xeex ñooñu di leen xeex waaw affaire demee noonu bañ bàyyi Nigéria ne bàyyi ba mu ñëw ñëw ci Nigéria waaw léegi nag ci kaw loolu nag waaw Baye demaat na fi Nigéria ndax yaa Balxiis mi ngi nettali ne am na ju benn jamono yoo xam ne Baye daf koo waxoon na ko ol ma papa mu koy négliger di di ko négliger te boobu mu ne dafa amoon lu mu foogoon moo tax teel koo waaw parce que dafa yaakaar ne papa mi ñëw moom am na soxla yoo xam ne du ko mën a doxi waaw yàlla def na daal ba papam ñu tërë ko tërëkalaam papam ñëw waaw bàyyi na ko taal bi taal Cheikh Jean Tall dañ cee bañ a war a karaama dañ cee war a bañ a war a karaama waaw maanaam dafa Abdou Malik dafa ñëw tey ci élection ñu def coup d'état Nigéria mboolem xarit Abdou Malik ñoom ñu rend mu ne ko lii laa bay bañ parce que sa papa waru cee bokk waaw léegi nag am benn ku baax ku nekk Nigéria koo xam ne euh, buur la foofu nekk taaliba baay foofu noonu si waaw affaire dem nag nekk Nigéria léegi nag gars yi nag àndu ñoog comme que àndu ñoog moom àndu ñoog baay hmm? ñu ne ko da ngay tànn ñun nga tànn ñu wala nga tànn baay mu foog kaalam gi sànni naa baay pour ñu bëggal ko rek ah ñu dugal ko ci benn kaso tëj ko fa boole ko mboolem compte yi compte bi waaw mooy ku ñu tudde Abdoulaye Bayero affaire yi léegi nag ñu ne di ko dajaleel xaalis pour lu mu dundee moom ñoom taalibe yi su ñu koy dajaleel xaalis noonu rek lu mu dundee affaire demee noonu rek hmm, lettre bàyyi bi egsi ne def ko def na ko xalifaam ku ko gërëm la moom nga gërëmoo ku ko ki naqarloo moom nga naqarloo léegi nag ñi ko doon fitnaal xam li ci bàyyi jublu ñemeetuñ ko nag ba ajuma jotaan gars yi bu ñu tax seen oto yi dem julli ci ajuma dafay mel ni xew dafay mel ni gàmmoo am waaw gars yi ñemeetuñ ko waaw kooku sëtam moo nekk nii Xalifa fii ci Nigéria waaw affaire ba buntu Nigéria waaw affaire yu demee waaw loolu daal waaw hmm. waaw <coughs> njaboot gi na wax dëgg yàlla <coughs> man li ma ci xam laa lay wax comme li ma kaw li ma ñu bëri xamee woo man du ma wax lu ma xam munoo fee wax nag la loo xam ne diñ ko diñ ko diñ ko critiqué munoo ci am barke ba ko ci àddina loo xam ne diñ ci commenté wala diñ ci xale wala ko wala ko defee nii parce que bañ koy bañ koy wax yow ñoom nekkuñ fa yow nekkoo fa ñoom nekkuñ fa ah, ah. waaw loo wax dañ ko commenté dana am ñum neex day am ñum naqari Mm-hmm. a ah, bàyyi de wax dëgg yàlla jàng ak jàngal a xam-xam la ñuy bàyyee te ba léegi nag ma nekk marina dégg nga ba léegi nit ñaa ngi gëstu xam-xam mais nag jamono ji ñu nii ñu ëpp ci nit ñi a ah, xaalis dafa am mel ni am na lu bëri lu ci yàq nag faut dire la vérité xaalis ñu bëri nga gëstu xam-xam nag wax dëgg yàlla fii ci marina mais ñu ëpp ci ñoom Hmm? Hmm? xaalis dafa am lu bëri lu mu yàq ci biir waaw am lu muy bëri lu mu ci yàq moom ñi daan dimbalee tante ci Medina Baye foofu ba léegi ñu ngi koy def dégg nga mais am na ñoo xam ne fii ci Medina Baye ñu dimbalante loolu moom maa ko wax sama wax la waaw mais am na fii ci Medina Baye fii ñoo xam ne dimbalante bañ daan def ba léegi ñu ngi koy def ba léegi ñu ngi ciy taxaw hmm? waaye am na ci ñoo xam ne defuñ ko mais am na ci ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci am ñoo xam ne ñu ngi leen dimbale bénéfice du boo xam boo xam ne bëgguñ kenn xam ko bëgguñ kenn yëg ko am ñoo xam ne ñu ngi waaw ñu ngi dimbalante nit ñi bu baax a baax baax a a baax waaw ci wàllu mag ñi de ci ñi ma xam man waaw hmm? kilifa diine ma nekk ci yu bëri yoo ñu ngi dimbalante jàmm yàlla bu baax waaw surtout chement si macha allah maam Cheikh tabaarkalla macha allah ak ñeneen ne ak ñeneen ak ñeneen non damay bañ di lim di lim di lim ba ci juum ci biir wax waaw mais wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne waaw léegi nag ah waxal suñ doom yi suñ doom yi du mu ci suble waaw ndax suma ci yàlla xiiroon damay tudd man faala ma yooyu waaw waaye du ma suble kenn hmm? nañ fa seet suñ biir waaw ndax fi ne nii jamono ñu toll nii ah kum neex ne kum neex dàq ganaar gi waxaay say soxla kum neex laf loolu kum neex wax na maanaam wax joo xam ne da ngay dàq wala waxaay say soxla waaw waaye Touba ge ku fa nekk nga nekk doomu sëñ Touba si sëñ si Touba amoo kër gu baax wala oto bu baax gars yi dañ la liggéenti ku nekk kër maam borom Touba amoo oto bu baax wala kër gu baax wala jabar ju baax ah taalibe yi wala doom yi wala sët Hmm? danañ lijjanti ba nga am ko kum neex na sama kum nee na ma sama ne ma sama jom sama bopp laa ci jublu sama yoon nekku ci waaw damay wax rek bu ma neexee sax ma ne bu sama bopp laay bu ma neexee waaw nit ñi kenn mën ci mucc ci ñoom de aha waaw man loolu laa wax dimbalante fii Medina Baye am na mais dafa des Medina Baye dimbalante am na mais dafa des Medina Baye dimbalante am na mais dafa des mais dimbalante mu ngi fi am bu baax waaw mais dafa des waaw mais nag su ma mais ki ma koy gën a wax mooy suñu doom yi nga xam ne yàlla dénk ne leen dara lu bëri ci àll ci àll àdduna waaw am na seen am na seen nijaay yi wala seen baay yi seen maam yoo xam ne soxla nañ kër gu baax wala oto bu baax wala nangam bu baax am na fii te ñoom xam ne loolu te boo leen gi bëggoon gis tey wala nga oo leen téléphone wala nga bëgg leen gis ah hmm? lu jafe la xalaa nga dégg ñoom ci mbedd mi wala nga wala nga mbëkkante ñoom ci barab waaye gisali wala nga oo leen ñu jël la lu jafe la waaw moo tax ma ne du ma la tur kenn waaw mais ñi may wax ñoom xam nañ seen bopp ñoom mënoo fexe ba teg ci kët bët waaw kon nag ñooñu buñ ma déggee géeg sama vidéo bi affaire demee noonu ñoom danañ xam li may wax danañ xam fi may waxee parce que waruma tudd tur waaw mais ñoom bu ñu déggee danañ xam li may wax danañ xam ñi may xam danañ xam fi may waxee loolu mooy wax ji waaw mais am maa mag ñi moom wax dëgg yàlla li ñu ma ci dimbalante ñi wax dëgg yàlla ñu ngi koy def ñu ngi koy def si liñ ci ni man waaw xale yi nag ñoo war a rek ci mag ñi waaw affaire demee noonu c'est comme di dégg naa kii suñ benn mag sëñ Moxtaar mu bàyyi am na ku ko laajoon ci maq doomu bàyyi naar yi ne ko doomu bàyyi kan moo ci gën loo yelloo dimbale affaire demee noonu mu ne ah, yàlla ñëpp a yelloo dimbale waaye am na xam ne am na ñoo xam ne ñoom wax dëgg yàlla diw ma am cité ay tur yuñ ko cité ñaari xaw nit xaw ma ñetti nit mu ne ñëpp a yelloo dimbal hmm? waaye am na ay ñenn ci ñoom ñenn ñoo xam ne ñoom affaire demee noonu wax dëgg yàlla seen loxo jotul gannaaw mu cité ko diw ak diwak ak diw ak diw ak ah wax dëgg yàlla sëñ maamu yàlla ko yàlla xal àjjana waaye fa ci koom waaw moom imaam Hassan Cissé waaw <coughs> wax dëgg yàlla dëkk bi def nañ fi ay taranga yu bëree bëri bëri wax dëgg yàlla ay yu bëri wax dëgg yàlla ay yu baax yu bëri bëri bëri bëri bëri waaw suñ jàkk ji wax dëgg yàlla duwaañu boobu defar na ko ba mu baax yàlla na ko yàlla fay ak mboolem ñu ko jàppale wax dëgg yàlla waaw affaire demee noonu waaw école bi tamit <coughs> waaw ñu bëri ñu ci participer <coughs> ñoo xam ne yal nañ leen ko yàlla fulandir te may leen jàmm ma leen guddi fan may leen wér wax dëgg yàlla waaw ah ah Abdourahim nag dana campagne ci biir loo xam ji mi ngi wax taalibe yi ak mbokk taalibe yi waaw nee na am na projet waaw du ma tudd projet bi nag du ko tudd waaw mais nag ku bëgg ko bëgg a xam man ngay jokk ak téléphone waaw du ma tudd projet bi ku ko bëgg a xam daal da nga may oo téléphone ne ma projet bi daal ma ne nangam ak nangam ku ñu war a jox danga ma ne nangam ak nangam dama ci profité waale dama ci prévoir comme li ma wax sànq dàgg naa waxee sax am naa projet projet de bi ku ci demee man nag man nag da ngay jël sama numéro téléphone oo ma waaw 76 626 33 76 626 626 33 sama projet la boo xam ne li ma bëgg mooy heure bu gàmmu ñëwee ma am fu ma dal ak samay gan heure bu gàmmu ñëwee ah hmm, hmm, xalifa bi yónnee ma ay gan heure bu gàmmu ñëwee xalifa bi yónnee ma ay gan loolu laa bëgg loolu laa bëgg ak yeneen kër ak yeneen kër ak yeneen ak yeneen loolu laa bëgg xalifa bi ma yónnee ay gan ma koy recevoir ah di dimbalante ak ñoom noonu laa ko bëggee waaw ah ñu ngi ñaanal yàlla suñ doom yi yàlla yokk seen am am yokk seen mën-mën may leen gudd fan may leen wér waaw waaye nag seen baay ak seen nijaay ak seen maam yi nekk fii nga xam ne dañoo pauvre ah bu xaay oo leen seen maam yi ak seen nijaay yi hmm, ñu leen di wër mën nañoo fexe ba teg leen bët nañ gën a dimbalante ñoom te te bàyyi tax te yàlla tax <coughs> lu may tëjee daal lenn rek la <coughs> yal na yàlla xalak héeféer bani Israël yàlla yàlla xalak <coughs> affaire bani Israël <coughs> yàlla yàlla <coughs> damu seen nguur yàlla yàlla damu gépp nguur gi di dimbale Iran mi leen di dimbale yàlla na ko yàlla dimbale Liban mi leen di dimbale yàlla na ko leen di dimbale yàlla yàlla may Palestine seen état bopp yàlla na yal na yàlla may faral si seen ata bopp yal na yàlla may faral si seen ata bopp yal na yàlla may faral si seen ata bopp yal na yàlla may waa faral si seen ata bopp yal na yàlla may faral si seen ata bopp yal na yàlla may faral si seen ata bopp ray yi bëri na bombardement yi bëri na yal na yàlla dimbale yal na yàlla jàppale comme ni ko bàyyi doon ñaanee yal na yàlla taxaw yal na yàlla may jàmm àdduna ak àllaxira yal na yàlla musal bépp musiba ak bépp bala yal na yàlla musal bépp ay ay bala yal na yàlla boole sopp yàlla gis ak yàlla nga xam lépp luñ soxla da yàlla leen def loola madina gii lépp lu fi bàyyi bëgg yàlla na ko fi yàlla yokk jàmm ak barkeeg xéwaleeg ndimbalal yàlla rek yëpp waaw te it bëgg naa tamit ba bàyyi bàyyi taaliba bàyyi bàyyi hmm, bàyyi amul doom taaliba baay bàyyi bàyyi amul doom waaw kenn du miiras sa bàyyi ba pare mu ngi miiras bëgg ba bàyyi jàmbur kenn du miiras sa baay ba pare bëgg bëri sa baay baay jàmbur te am na ñu ko def du ma tudd seen tur nag waaye ñoom xam nañ seen bopp kenn du miiras sa baay ba pare bëgg miiras baay jàmbur mais am na ñu ci ne waaw bëgg dugg sa place baay bëgg ñu ko ñu bëgg la koo aaye waaw am na ko def waaye du ma tudd seen waaye buñu déggee vidéo yi dinañ xam ne ñoom laay wax waaw am ñoo xam ne da ngay bëgg dugg sa place baay ñu bëgg la ko aaye waaw naan li nga fi defoon daaw ak nangam affaire demee noonu heure bu ñu duggee buddio bi rek danañ xam dana moom dana xam ne moom laay wax moo tax ba ci profité du ma tudd turam nag waaw te su ma neexoo ma tudd ko waaw waaye du ma tudd ndax xam ne rek li mu baax deful dara baaxul dara jubu ci waaw ñu ñaan yàlla yàlla dimbali Sénégal président bi li fi mu bëgg a jëmee ci lu baax yàlla dimbale ko ci jàppale ko ci moom ak premier ministre am yàlla dimbale leen taxaw leen ba fépp bëgg ci jëli senegal ci lu baax yàlla dimbale leen ci jàppale leen ci yàlla mën na loolu yàlla ko def ci barka bay te taxaw senegal def jàmm senegal nawet ak barke ndox mi yàlla bu mu yàq dara dara dara dara dara dara ñëpp yàlla leen jàkko ci càkk te ci saa atibagin te yàlla may dépasse bu sax dépasse bu sax dépasse bu sax jàmm imaam Cheikh yàlla na ko yàlla may wér imaam Cheikh yàlla na ko yàlla may wér imaam Cheikh yàlla na ko yàlla may te yàggal ko fi imaam Cheikh yàlla na ko yàlla may wér te yàggal ko fi Baba Lamine yàlla na ko yàlla may wér te yàggal ko